ginnaaw ba doomam bi rek ñàkkee combat am diggante moom ak Tapha par avertissement la ko ñàkkee euh, moom euh, Boy Niang waaye nag kii di Dégaule moom nag génn na ay fan rek la génn di euh, wax li nga xamante ni mooy ay kàddu yu tegginawul wala kàddu yoo xamante ni da koy wax si képp koo xamante ni Pikine nga dëkk ndaxte dañoo ne 100 pour cent Pikine moom Dégaule rek ginnaaw ba doomam ñàkkee combat am wax na ko xol bu jeex nee a 100 pour cent Pikine loolee dëgguwul si waa Pikine waaye nag amul lu mu yàqulu kookee di Eumeu Sène mu nga xamante xamante ni open de presse bu Boy rek moom ñëwoon na te bàkku sax daf tuus tuus bu neex moom euh, déggool di papaay Boy Niang lu mu yàqul Eumeu Sène nee euh, la Eumeu Sène du star Eumeu Sène dara moom euh, déggool rek moom moo ko wax ndaxte nee na bëri rek di sëy jigéenu teg si rek li nga xamante ni mooy kàddu yu ñaaw moom naka bàyyiwul Eumeu Sène kese ndaxte kii di Ama Baldé bi nga xamante ni moo war a bëri ak Modou Lo moom déggool rek amul lu mu koy yàqul ñoom sox ko xool mbër yëpp la mujj laal moom père bu déggool di papaay Boy Niang waaye loolee rek kii di man Mansour jóob nga xamante ni xaritam intime la xaritam benn bakkan la moom rek ba mu déggee kàddu yu ñaaw yooyu rek la déggool wàccee si waa Pikine rawatina si mbër yooyu ñu naan ak Ama Baldé ak Sokho moom Mansour Diop Mansour Diop rek delluwaat na di jéggalu képp kuy doomu Pikine si kàddu yi nga xamante ni déggool yëkkati na ko teg ko si a Eumeu Sène wala Ama Baldé wala Sokho wala ñeneen i mbër yoo xamante ni ñu ngi biir Pikine nee kii di déggool loolee mu wax du ay waxam te dafa juum rek te ku juum dañ koy war a jéggal moom nag nee na kii di Eumeu Sène du lenn lu dul magu Boy Niang nee na nag Ama Baldé moom ak Boy Niang benn lañ nee na loolee dëggool wax erreur la te erreur moom c'est pardonnable dañ ko war a jéggal nee na nag moom nag yëkkati na ay kàddu nee na Mansour Diop nee na bu fekkee ni da ngay ànd ak nit loo ko jege-jege ko wax dëgg mais dëggool dafa tooñ ki nga xamante ni mooy a Sène wala mbër yooyu di waa Pikine moom rek Mansour Diop muy delluwaat di jéggalu te naan tooñ baaxul kon loolu lépp biir Pikine la nee na nag Boy Niang xale bu ndaw la te dafagul dara si làmb moom rek nee na Boy Niang ak kenn gënu ko doon ngir yi te li nga xamante ni mooy komba ba loxoom euh, dafa mujj damm te teewul noonu la àggale combat ba ba mu demee sa hôpital sax yu bëri euh, wala sax médecin bi rek dafa ne woon yow lii euh, waroo ko woon bëriwaale parce que mën naa yàq sa carrière